Euh, lan li rek mun na ko doy ko quoi parce que ñu muy déglu déjà ay kàngam lañ. Euh, le cas Mori Kanté xaw ma donc euh, j'ai appris son décès l'autre jour aussi. ñu ngi koy ñu ngi koy waaw ñu ngi koy donc figure yoo xam ne foofu day inspiré wu ci ñoom. parce que xam nga ñun li ñuy def ñun musique amul kan boo koy jàng ñun daal ñoom dañuy jàng conservatoire. donc on a appris à faire de la musique en écoutant les autres j'ai appris à faire du rap en écoutant les autres j'ai appris à m'ouvrir musicalement en écoutant beaucoup de grands artistes Des grands artistes yooyu ñu ëpp c'est des artistes j'ai dit aimer le jazz parce ne pas pas fan du jazz la quoi sama pas fan du jazz la musique africaine la musique donne suñu Sénégal Baobab number one Abdou Diouf Ba Mauritanie sama papa laa si jubloo son chanteur préféré muy Djaliba Kouyaté Djaliba Kouyaté rajo kankan muy avec ci hip hop bi ba ba ñuy dégg albumu albumu ba mu njëkkee dégg titre albumu Bataillon Blindé mu tijji rajo kankan automatiquement daf ma delloo daf ma delloo ci Djaliba Kouyaté parce que tey jii musique africaine richesse ñun rek ñoo ko xamul maanaam mën nañ ci puiser puiser puiser ba doyal te duñ ko jeexal Sénégal ñaata ndaanaan la am. wallaay te li à chaque fois faut savoir que il faut apprendre écouter la musique sénégalaise parce que ñun en dehors même suñu culture bi nga xam ne moom la ñëpp partagé mooy la musique traditionnelle mooy euh, la musique euh, afro-cubaine bi nga xam ne moo fi amoon dans les années quatre-vingt mooy le mbalax actuel Sénégal ethnie boo dem au Sénégal. am am na histoire am na ay rythme donc dafa am richesse culturelle bu extraordinaire bi ñuy def euh, bi ñuy def xaat fakalaama euh, dañu dañu ci intro bi donc ci ci farafinam dañ ci ci utiliser benn instrument boo xam ne Badou Diop moo ko jëri Diop moo ko moo ko moo ko en tant que casase quoi de éconté d'accord ñu ko ci c'est un instrument typiquement sujet bi ci véritablement sujet du ci du Sénégal mu indi leneen ci mbir yi maanaam ñun on a tellement de recherche suñu biir suñu biir dëkk bi mais xamuñu ko moo tax pour un artiste il est important de faire ce voyage là faire un voyage musical dugg say racine dugg ci musique africaine dugg ci world music xam parce que pour man lu ëpp li nga xam ne mooy tax mooy définir ce style foofu nga koy jëlee tey jii ci dix rappeurs rappeurs compositeur rappeur da nga xam ne foofu d'accord comme benn nga comprendre te loolu la koy may mooy loolu voyage moo la koy may par biais moo la koy may man ci a écouté de la musique ba tey jii nii te dama koy wax dañ ma ciy tooñ bu bëri maanaam musique rap bokk na ci musique ma gën a ndaw lu may dégg entre ñuy entraîné loolu ñun suñu nekkee ay footballeur chaque jour gars yi dem entraînement yi seen kër yow su gars yi entraîné ba pare yow nga dem terrain basket entraîné ak basketteurs bés bu gars yi centré corner soo jugee gars dañ xam ne yow yow war ci bëgg da ngaa mën solo ci basket bi la parce que parce que déjà yeneen ñu nga koy jàng <laughs> dëgg la parce que déjà même son bi boo ko di nga xam euh, yan artiste la proposé di tàmm di déglu euh, yan écrivain aussi donc wala yan bouquin lay tàmm di di lire donc euh, mu nekk loo xam message bu am solo la ñu ngi ni aussi waa rap 221 ñu ngi leen di béggee bu baax yee ñu ngi leen di siyaar bu baax alors euh, damay ñëw ci diggante popaseur ak artistes yi <laughs> waa ak artistes dañuy commencé ci benn gaay kii ci kii la ñuy commencé ak euh, dama ko fan dama ko bëgg man dama ko bëgg quoi franchement artistiquement déjà en dehors de l'homme parce que bu dee l'homme rek l'homme moom dafa neex bëgg parce que c'est quelqu'un boo xam ne il dégage la bonne humeur am da nga koy gis soo triste sax da ngay content parce que suñu toogee kenn du ri kenn du kenn du ñëpp dafa sëmi dafa free donc la personne déjà la la personne dafa neex bëgg mais l'artiste c'est déjà autre chose Ombre Zaire c'est une autre dimension le mec il sait tout faire ombrezayante sais, man ne me faire Crazy quoi parce que moi, j'ai un dañuy way dañuy rap ils sont bons sur reggae ils sont bons ci hip hop pour musique traditionnelle la en fait c'est des gens c'est des cadeaux qui ont... suñu borom qui et puis ils sont ils sont très modestes alors na non mais

maa ngi si mbedd bet bu teeyu ak crim kaño bon alors Papa Sow ak mëg ak bug seen kumpa alaaji alaaji bamba alaaji moom <laughs> c'est mon bug bug bug sama comme xam nga xam nga sànq maa la ci première émission bi naan lan man moom ak Big Fall ñoo gën a nekk booy ci ci ci ci ci biir ci biir neuf neuf Jolof Falaay parce que bi ñu ñëw. Uh-huh. y mu ngi fa woon y avait ci biir seen compo y avait waa bi mais ñooñu ñëpp ay références la ñu pour man Bouch ak Big ñoo bokk génération ñoo bokk tranche d'âge donc ñoo doon ëpp lu ñuy fréquenté donc ñoo defandoo ko yu bëri ñoo doon passé. beaucoup de temps aussi donc ci biir temps boobu noonu ñu am ay relation des yoo xam ne des ba xam famille yi xamante sama famille xam na famille am famille sama famille donc euh, dafa dem ba quoi li ma wax Fa même chose waaw. alors euh, waxoon a nañ jour euh, je me rappelle bien ma invité la émission ma ne la des def def fit te yëgaloo leen ma ko xam nga des <laughs> boobu daal métti ñëpp. te te man maa édité woon affaire bi. waaw lu leer non non fait en fait septic moo tëgg combat septic moo ko tëgg moo moo ko parce que bi ñuy def seen album bi lyrics yi ñoom ils ont eu maanaam li ñëpp doon bébét. yow yàgg nañ ah. ko wax ñeneen ci internet bi yàgg nañ ko wax parce que Karif Seye côté côté voix déjà su làkkatu di waxoon ma làkkatu di wax da ngay foog ne benn bés bu may wax. ñuy rap. tu as l'impression d'écouter la même personne. Donc, euh, wow, ça, vraiment. Ak, ak, ak, sceptique. Voilà, hey, suñu morom mooy def loolu naka ah. léegi yirim ak sceptique nag ñoo dañu tëgg benn combat ñu def benn somb tudd këni mooy les jeunes. te son bi li gën a yéeme ci son bi mooy indaale ma benn baar studio kalis indaalewul benn baar studio. ah I'm telling you sceptique ak kalis mën nga leen laaj mën nga laaj sceptique mën nga laaj kalis mën nga laaj yirim maanaam jeune bi

léegi maa ngi wax sax solo guddi ñooy bruit ñooy ñooy def bruit <laughs> salut c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup respect yeah man li li ma lay wax nii xoolal Jaco soo invité la question le son Kalif non dama koy jël kooku kooku sama bi yëpp matul trois heures de temps on bi ñu sax ay

Euh, dama boon ñu tëj baar bu parti bële euh, mooy parce que man euh, man gëstu naa mhm. xool naa sa sound yi déglu naa lépp mais parce man mosuma gis nga clash lu tax loolu mhm. pourtant damay clash de damay clash de mais xam ko nekk ni koy defee am man l'artistique man dama di ko tey faxu mën a non Jaco xamal naa ko lii Jaco nit bu bon la non Jaco non loolu c'est la personne c'est Jaco man j'aime pas man du noonu laay gisee mbir mais parce mais samay biir musique samay naataangoo samay morom parce que après à part ça clasher pour clasher clasher pour se faire du bruit yooyu noonu ça n'a jamais été mon truc franchement parce que man je me suis dit tout dit que ku yàppam matul mooy soxla mburu moi j'ai tellement de choses à dire du ma am temps wu toog bi wax ci keneen aw ma mosuma am temps boobu donc moo tax soo xoolee der set sama lasta yi génn rek mooy son boo xam ne damay jël chaque quatre baar ma ma ma ma wax ci ma war a wax te ba léegi tudduma ci tur mais ku ci nekk su dégloo li naan ku wéet xam sa bopp ku ci nekk su dégloo dina xam lan laa wax ak moom parce du ma wax lu bari mais damay dégg damay déglu bu baax a baax damay ma déggee nag bu trans man bi ma fi assisté rek daf may neex man damay bëgg ku may def ku may ku may lancé ay challenge soo mënee xamoo dara mooy du ma nelaw guddi gi parce que foog ma wan la ne maa la mën te loolu dama koy dama koy wan sama mbir. loolu laa gëm. wala sa artistique prime surtout mais nekk nii wax ak ay. saaga nday ay diw lii diw xamal naa ko lii nangam sangam non non. waaw waaw waaw <laughs> man ko bàyyi dégg rek loolu moom. loolu moom man moom du moment que artistique c'est bon. mais après loolu yàq der beeg yàqante beeg yooyu moom merci quoi. alors am na benn question am na benn question nee na à quand la vidéo de diw. Mm-hmm. <laughs> mais est-ce diw am na sankaare. ah waaw baax na xol xol xol mbay crédit ak nga xam ne diw mooy sama yàgg bëgg def vidéo franchement. kon baax na amaguma sax kopparo def ko parce que li ma ci bëgg li ma ci bëgg def mënuguma sax def man damay ragal balaa ma ci mën def dëgg-dëgg bi soo bi tëri parce que soo bi am na cinq ans déjà ok alors professeur lan nga desal waa sama petit frère da mooy mooy posé question bi alors léegi yow yan lan nga dessel wa Rio. wa Tëngéej. wa parce que dafa nga leen lii tamit ah. fii Rio. Ah. mooy <laughs> Rise up, sing sense, I'm a singing for more time. Welcome to Ah town. I represent kan? Hah? Iya. disque d'or. waaw Crési Crési Mbaye nee na waa République ñoo la yore. disque d'or daal laa leen bëgg jox est-ce que xam nga ne kii c'est mon petit frère et il est membre du groupe Crazy Boys c'est l'un des plus grands groupes de danse des grandes compagnies de danse au Sénégal. moo représenté nañ Sénégal deux fois l'Afrique en incroyable talent. Euh, gagné nañ gagné nañ lépp luy trophée national ci danse gagné nañ ko donc. Euh, ñoom tamit dañu bokk ci ñi ne ñooy samay pièce de parce que dama leen gis ñu nekk ay xale màgg sama koñ di fecc mën naa leen xamoo leen di leen sabote ñu dem ba nekk groupe bu mag a mag a gëm ko donc mu ne ñu nekk vraiment ay pièce ci man daal li ma leen mooy disque d'or parce jox naa leen meilleur album jox naa leen lyricist ngi ne la ñu ngi ne la jox naa leen lyricist of the year jox naa leen meilleur featuring euh, bëgg naa leen daal jox disque d'or ko définitivement. alors <laughs> euh, ñu ngi ñëw. alors ñu ngi ci euh, bien sûr euh, avant ñuy dugg ci projet bi. Papa est-ce que mon nañ un jour nga def ay featuring avec la nouvelle génération par exemple bu doon la nouvelle génération nga featuring ñan ngay doon Euh, par rapport ak fi nga toll ak musique bi ngay def ak sa gis-gis ci ñom def ak ñom featuring dina nekk melomaani. pourtant est-ce que xam nga ne presque ñu ma ci defarul featuring wul de déjà rek on a on vient de terminer un son man ak authentique de un un gamin de ken Diallo. def nga benn aqua extra cool. authentique ak authentique de ak ak les diwan bi en dehors de ça. Ekilkul gak cool, akan angkor blende ak kan gak ñu defal bëri boy de mooy mau ka def nañ buku moo ak simo mooy tolluwaay waaw maawo bëpp lëg moom ko generation il est à il est à part mais tey à part brick brick album di passé def nañ ci man man moom ag books Euh, donc ñu ngi daal actuellement bëri nga xam man j'aime bien j'aime bien ça te xam naa ne bëri na ñoo xam ne dinañ ci dinañ collaborer man ak ñoom parce que man j'aime bien les challenges j'aime bien indi lu bees moo war a def effort artistique pour pour pour fekk si ci li ngay def pour ñu def lu nice man man j'adore ça parce que pour man loolu mooy loolu mooy loolu mooy vraiment challenge donc te généralement ñu si bëri ci booy ñu ma ca xamantal quoi on a généralement de bonnes relations. loolu moom moom dama gis euh, nga def benn témoignage bu rafet ci benn artiste euh, Fata lan mooy seen relation yéen ñaar. Mhm. Mhm. pourtant xam nga ñëwante kiiwuñu sax c' pas quelqu'un que je connais connais bien bien bien bien mais euh, man damay ni xam ne du ma nit ci. li ñu di wax wala nangam sangam témoignage loolu moo koy def xam man je suis chroniqueur dans une émission mën naa ko invité woon ñu ñëw te quand il est man j'ai salué sa persévérance benn dama salué persévérance benn boo xam ne tout monde derrière lui tout monde contre lui et il a su résister mosul changer cap te man dama koy respecté ñaareel bi mooy ba gëm suñu tradition gëm ci république gëm ci moo ci mere doomu aadama parce que man je me dis que la seule chose bi ñu mën a jaay ñun li ñu mën a jaay ci àdduna bi àdduna mooy loo xam ne si saluer moo tax moo tax moo tax ah. waaye Mina Mina Mina moo ne Mina moo ne daa am communication bi en Mina moom moo ne daa am décalage ci communication bi. Mina yow moom yaa am décalage yooyu yow eh, xam naa peut-être connexion bi peut-être connexion bi. waaye euh, réseau bi man damay damay respecté loolu. te li li waaw ma li ma déggoo ñu wax am na ay nit doon nañu ko wax parce que les gens ne peuvent bi tëgg sabar man mënuma comprendre. sénégalais juddoo dàngu jàkkaarloog njëwel am ay copains yu tëgg sabar sabar nekk instrument comme yee instrument yi nekk instrument moom mën tëgg sabar wala rusa tëgg sabar quoi pourquoi moo ko def donc donc bi ma ko bi ma njëkkee joué sabar ek la woon c'était en 2013 concert la woon tëgg donc parce que ñu bëri dañuy dégg ne dañuy gis j'aime bien mettre des percus dans musique pour ñoom genre que genre juste feeling la wala je veux créer le buzz wala dara mais est le seul instrument bu mën a donc tey jii man mën naa jor sabar nekk ay géwél ay vrai kat ñu tëggandoo man ak ñoom ñu teg ko ci harmonie donc j'ai un talent pour ça te ni ma mën a wanee sama talent ci mbind mi ak ci rab bi tamit noonu laa koy mën a wanee ci sabar donc te je le fais avec fierté dama koy def avec fierté parce que man bokkuma ci aliéné yi bokkuma ci complexe yi nga xam ne tey dañuy rus a wane seen culture man gëwma sax yooyu noonu quoi donc euh, moo tax je moo tax ma ne ko franchement dama koy tirer chapeau te en dehors de loolu tamit c'est quelqu'un aussi boo xam ne un grand rôle pour la nouvelle génération faut pas oublier que à travers aussi son émission c'est pas feeling c'est yu bëri au Sénégal dañu dañu dañu fañ ci hip bi les Canabasse les Noné gars yu bëri ay rescapé jàngam tàng ñu ñëpp man ci émission Fata laay xamee à part ça mu nekk témoignage bu mm. rafet aussi quoi franchement donc manam yeah manam manam manam maanaam manam maanaam xam nga ñun les gens ont la mémoire assez courte parfois Sénégal dañ gaaw a fàtte te ji Jaco li mu def hip hop bi dañ ko ko war a wax Neff li muy def hip hop bi déjà dañ ko war a wax Lamine Sène li mu def hip hop dañ ko ko war wax c'est-à-dire mais du chaque fois dañu war mais histoire bi mën nañu ko effacer dëgg ci a été la plus grande star du hip hop sénégalais ko wala bëy ou non te loolu la def. waaw te foog wax génération bees nga xam ne dëgg ci demoon na maanaam ñu doon gisee star yi à la télé comme ay Jay-Z ak ay Nas noonu ñu ko doon gisee Sénégal voilà on l'a annulé donc tey jii il faut pas qu'on essaie de de de réinventer la roue quoi ku fi def dara. d'accord ñu ko nangu dafay def dara la mbir yi te ku dul jox ku dul reconnaître liggéey kenn du d'accord euh, léegi dañu ñëw ci li nga xamante ne mooy le projet de Poposa balaa ñu égaler émission bi euh, mu tudd Ninki Nanka pourquoi le titre Ninki Nanka Ninki Nanka ni ma ko xamee mooy benn jaan bu gànd la boo xam ne bu nekkee sur terre euh, day jël benn benn cocotier wala benn garab ci àll bi bu tàllee ko ba ba mu leer ko ne ëpp na leen mu day naan fii dépassé naa bi damay dem ci géej bi waaw est-ce que am na nuance. ni nga ko daan waaw. ñu ne ñu ne ñu ne soo ko ñu ne ko ñu ne ko ñu ne soo ko gisee dee su la gisee nga dee su gisee boppam sax day dee. te tey jii. waaw tout dépend de ban zone géographique nga nekk parce que xam nga en tant que civique Sénégal da ngay jàpp ne c'est une région Sénégal mais du du du de l'Ouest. waaw yeneen sax. nit ñi liñ ko naan ko dafa te selon pays booy dem dañ koy jox description bu différent ñu nee nañ dragon la jaan la bu am ay petaaw nee la donc foo mën a dem rek dafa am description buñ koy jox te sooy xool étymologiquement le mooy lii ange lii ku ci nekk am nga biyaate boobu te proposé tey jii soo ko na tey ñu la mën a wax ndax proposé old school la ndax proposé new school la ndax proposé bind la gën a mën a ndax proposé flow la flow ak technique la gën a bëri en fait aspect insaisissable nit ki nank boobu man daf maa toog tey jii bëri na a dama a dugg ma ci maasa ki nank boobu noonu day présent waat te su ma ñëwee étymologiquement premier choix bi xam nga ñun dans nos tradition famille bu nekk da am tafat da am rab am ngay tagg man tey fi may tagg dañ naa man Sagna Ndoba Signa Abbas si mi ci Manka. ah. Sagna Ndoba pourquoi la date pourquoi la la date du 7 pourquoi le chiffre 7. En fait, d'abord, ça devait sortir le 23 mars. Donc, euh, les le 23 mars. loolu mais comme yaa y a eu benn euh, crise sanitaire le 23 mars loolu njëriñ la voilà donc comme mbas mi ñëw na mu nekk crise ak crise sanitaire boo xam ne àdduna bi yëpp la yëngaloon donc fallait que ñu dëgg bal bi xool un peu évolution situation xool un peu tamit lan lay joxe parce que c'était aussi risqué de sortir un projet ci période boobu noonu léegi bi ko téye la ah. date du set moom pour la première fois de ma carrière du mën naa ko choisir Papis Cissé Papis Cissé Sidi Talla Sidi musique Daouda Mar Mbeng ak Fall le staff de l'album ñoom ñooy choisir la date du set du pas bii moom date bi awma ci daara maa ngi nii ñoom ñoo dama le set nañu génn seen album ma leen ok d'accord y a pas de problème ok le set mais nag set moom chiffre set moom ko ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ ñu <laughs> alors euh, euh, lan lañ mën a xaar ci euh, projet album boobu di Kinanga musicalement parlant ci lyrics yi yan nouveauté wala yan bagage lañ mën a am li nga xam mooy projet ni Kinanga boobu léegi léegi balaa may tontu mbéng nee na dañuy wara a mandiloo yëpp ak ay daal yu sept juin nii mu bind en commentaire kii kii bokk na si o décidé álbum. album. waaw voilà léegi liñ ci nànk la moo tax lu spécial mooy liñ ci nànk de dix ans de carrière maanaam deux mille. waaw deux mille é ci deux mille vingt wane nañ ay facettes yu bëri maanaam catégorie un c'est un projet très underground très lyrical Xassida c'est é un projet très technique. boo xam ne bi ñu bëgg a wane ne am nañ flow am nañ technique xaatima kalaama c'est un projet très musical boo xam ne ay instruments ñoo ko joué. ok c'est un peu la continuité de la unité boobu mais ñun daal seen c'est vraiment la culture sénégalaise léegi nag liñ ko naan c'est le résumé de tout ça ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëggoon proposé unité volume un maanaam ay storytelling texte yu deep. ñu koy retrouver ci biir ñu ngi naan ñëpp ñi nga xam ne dañ bëggoon proposé technique wëyu foo ci xaatima téem dañ koy retrouver ci biir ñu ngi naan ñëpp ñi nga xam ne musicalité wu xaatima kalaam mooy la neexoon dañ koy retrouver ci nga xam ne nag mélodie mooy ne ay lu ci suñu yoon ay biti trap am ay pëcc gars fecc dañ koy retrouver ci biir ñu en fait on a fait un peu le résumé de tout ce qu'on a fait ci dix ans yi ci benn projet Mhm. Il y a la musicalité dedans. Il y a beaucoup de thèmes dedans. Il y a des figurines, il y a des c'est vraiment la famille quoi, c'est des gens que j'apprécie musicalement. Yo xamné projets il projet. a des Sénégal il du a des gens qui OMG avant muy sax nekk artiste sama OMG la ma sa nekk parce que man ak magam ñoo jàngoo man ak université su ma daan ñëw seen maanaam dama doon ñëw di toog moom comme benn xale quoi dama dama fekkee dama fekkee lépp euh, maestro man ak moom ñoo tasoon final Nescafé African Revelation waaw waaw sama kanam sama kanam loolu sama kanam la moom on a fait toute notre carrière en dégg nga voilà

mais mais newul ci biir album bi parce que y' un autre donc euh, mais new newul ci biir album bi boobu dañ koo denc dañu def benn def nañ benn benn benn track bu overdose dafa ñaari track ñaari track lañ def. benn bu njëkk dem moom spécial parce que boo xasaa ni ci biir dugub ñu bëri sax dañ ko ci mere parce que dañoo dañoo dañoo face to face man ak moom dañoo confrontation confrontation boo xam ne loolu. ku nekk ba ku leen neex yekk na. conflit de génération. confrontation donc franchement on a fait un titre boo xam ne gis nga jëndee de génération yooyu def ma ak moom donc tey entre idole ak taaram ak ak ak ak koo xam ne dafa yàgg ak milieu ak moom ñu moo tax boo la ñëwee ci projet bi parce que projet bi on avait le choix xam nga man su a def projet j'ai fait beaucoup de titres def comme xaatim ak kalaama yi di jël titre doxul quoi. les gens n'ont plus le temps d'écouter autant de titres même 15 titres sax j'ai dit ma baat ak sama sama sama staff pour que mu am 15 titres moom 10 titres lañ bëggoon def loolu la ñuy wax 10 titres en fait li ma bëgg a exprimer ci album bi du mën a xaar ci 10 titres foog mu au minimum ñu laaj 15 donc euh, Ninki Naka euh, professeur alors Ninki Naka ñaata titre lay doon ñaata titre la. ñaata 5. 15. 15. 15. 15 ba parce que bu nga 15 15 16 bëgg nga ko de. waaw. 15 <laughs> 16. chi ñaari chiffres yi moom am na fu ñu la toppee. 15 16. xanaa not not boobu nga doon am taay ngay jàng. <laughs> non eh waa nag waa nag jàkkaarloo nag de. 15 16 yàgg naa ko am de. léegi moom léegi ko ok alors euh, est-ce que. seize moo nekkoon sama note sama note est-ce que euh, donc bu ñu toppee suite logique gu projet bi mooy Ninki Nanka te man euh, d'après li ma xam ak liñ ma jàngal ci animam euh, jaan boobu nga xam ne mooy Ninki Nanka euh, dañu ne da daan nekk ci ci tool ci àll. Eh, day xol ben garab bo xamne mo gëna gën gudd mu tal mu talé ko bu tolok mom après da naan fi amatu wala may prouver damay dugg ci océan bi est-ce que mën nañu proposé dem dafa ne légui hip Sénégal li mo waroon def def nako légui je vais vers l'international proposé waxal wax ji lool la aduka <laughs> tout cas <laughs> ni ngi nambo wa fin de ci et toute fin est un nouveau début est un benn recommencement lay doon donc liñ ci nànk mooy tëj benn après incha allah at mii dañuy tëj beneen page waaw loolu moom loolu moom maa la ko garanti léegi pare nañ ci x yi quoi mathématique bi jeex na léegi la l'environnement non non ma dama di yor léegi léegi ñu ngi leen di histoire de. ah mais ñu génnee ci ci ci ci ci léegi dañ ñu yóbbu ci environnement ak euh, dañ ñu yóbbu léegi ci environnement mooy loolu ah mënuñ ci dara. yàpp. Mm-hmm. d'accord kon ne. D'accord. Alors, Papa c'est donc, ça c'est vrai que. Quand on parle de géographie, c'est beaucoup de déplacements. Le, monde est trop large. D'accord. Alors, Papa c'est vrai que l'émission, donc, mon a gagné goudou parce que vraiment, moi, lolo. Mais tamit, à mon temps, tu es trop occupé. À moi, à Kalevi, moi, lolo. Euh, dañ lay moi Lolo donc voilà euh, de dara de la remercier ci teewaay bi Eh, di la jaajëfee bu baax a baax parce que man dèjà laajuma la sa xalaat dama woo dama la woo ne la dama la jël mercredi tegoo ci baat eh, donc euh, vraiment di la jaajëfee ci sama des modestie boobu di la bégee eh, ma bàyyi la nga tàggatoo ak fanti yi melomaan yi jox leen rendez-vous le sept te te li la may lool li la may lool mooy doo soxla woo ma ne ma dama lay tàggu pour lii te liggéey la quoi.

juin le 7 juin incha allah ñu génne Ninki Nanka de album of the year album bi passé Ninki Nanka dafa ah, xaatima kalaam dafa génn nekk best of album of the year bi best album of the year lay doon ce sera sera digital am nañ ñu plateforme bu ñu def bu www point Ninki ba pare de disponible sur toutes les plateformes de téléchargement parce que on a travaillé en collaboration avec Dido may remercier bi doon bëggoon déjà waroon nañu wax ci mixte tout ça waa gis nga temps bi rek waroon nañ ci wax ci sa prix yi ah prix yi nga gëj ci hip hop bi tout ça waroon nañ ci wax de xam nga instant yi da nga da nga njaboote nag amoo jot c'est vrai ba ba voilà ba pare am na aussi am na aussi quelques supports physiques yu ñu def sur le site gars yi mën nga dem information sur le site mën nga jënd son www point linkinang point com tu peux acheter de la musique, tu peux juste commander un support public. Donc, euh, lépp dina am incha allah su corona bi jeexee nag ñu jeex ñu de tournée nationale. incha allah alors euh, titre émission bi mu ngi le message dans le rap est-ce que tu as défini le message dans le rap. non mais yow déggoo lu ma la wax tënk na lépp tënk <laughs> le message dans le rap Moi, je le dis et je le réitère. Merci. Bien. Bien. Euh, sinon, sinon tu as le, tu as le bonsoir de Gisaïd bi mu ngi lay nuyu. dem liggéey dem liggéey. yeah Gisaïd bi mu ngi lay nuyu. monsieur Gisaïd bi waa Grand Yoff maa ngi leen di ziar de. waa Debise dëggu musique yeah. Debise dëggu. waa tey fa laa defee émission bi bon mooy loolu. yep. eh Ndiaye Papa sa rang. so dëgg dëgg waa

Euh, dans l'émission le message dans le rap di bëggee ñëpp ñi nga xamné ñu en direct hein, di leen bëggee kontaan ci di leen jox rendez-vous euh, samedi prochain à partir de 0 heure ak beneen artiste peace love and have fun le message dans le rap